écrasante majorité de l'opinion sénégalaise Jamra dafa xëy dal di scandaliser wu en apprenant ndekete au-delà des trafics scandaleux de passeports diplomatiques ndekete il se livre sur place à un trafic de certificats de mariage mm-hmm. alors rawatina nag pratique mafieuse yooyu daal di am comme cadre une institution aussi honorable que l'Assemblée nationale. ah man li ma xaw a jaaxal rek euh, Jamra Mame Matar Gueye mooy euh, li nga mujj wax léegi que ne euh, mariage contre nature bi ñu ci tudd. ma bëggoon a xam ba xam est-ce que dawal ngeen prudence parce que loolu ay yëf lu ñu ñu annoncé nii rek mais est-ce que tamit bu ñu dem ba cappaandaw ga rëccu ci am ci position bi ngeen jël. non ñaaree ñun duñu jékki rek dégg tëll rek ne damm na moo tax nag ñun yemuñu ci naxarlu ko nous avons interpellé le procureur. ñaan ko respectueusement li Charles quoi ancien ministre de l'intérieur di wax bañ ñoo dal parce que il avait dit sur un ton ironique que vous en politique la meilleure manière d'étouffer une affaire mm-hmm. c'est de créer une affaire dans une affaire mm -hmm. et de créer une deuxième affaire dans la troisième affaire jusqu'à ce qu'on ne s'y retrouve plus moo tax ñuy ñaan procureur très respectueusement na séparer ñaari procédures yi maanaam bi féete ci wàllu Euh, trafic de passeport euh, usurpation. Mm-hmm. de titres matrimoniaux yi ak de recel de document de voyage la mm-hmm. loolu nag procédure am à part ñaareel ba bi ci gën a scandaleux mooy 31 certificat de mariage yi te benn bi ci gën a yéeme te jommal ñépp mooy benn bi nga xam ne ñaari personne de même sexe ñoo seq sëy xaatim ko ci document bu officiel bu Sénégal moom et qui est délivré par des officiers d'état civil de mairies ou des communes d'arrondissement daal di boole ñaari góor. nee nga du ngeen waxantu a xam rek tey jii nii euh, bu weesoo li ci presse bi wax yéen da ngeen am yenn information yu leen di prouver que ne effectivement que nga ñun ñoo fi jëkkoon wax ni am na ñaari góor jigéen yu dugg ci jumaa ji di sëy. Mhm. yaa ne eh, Jamra waxati na ñun ñoo fi jëkkoon wax ne UNESCO proposé na au chef d'État euh, des pays africains francophones un module LGBT pour ñu dugal ko ci euh, système éducatif bi ñu ne yooyu eh, Jamra waxati na en 2018 hmm. waaye 2020 l'histoire nous donne raison ba Macky Sall addu ci le 31 décembre dès après son message à la nation yéen waa presse yëpp ngeen seqo ko hmm. ba mu def mise en garde ne daal bu fekkee lii moo tax UNESCO bëgg ñu promettre ay financement na téye xaalisam de la même manière bi aussi nous disons que na procureur séparé ñaari procédures yi li tax mu am importance parce que enquête bi war nañu fexe ba identifier ban mairie ban commune d'arrondissement ak ban officier d'état civil qui sont les seuls habilités. voilà sax bu luy amee ça veut dire que c'est assez grave que ne. très grave xam ne. waaw si am na une chaîne de complicité moo tax ñun souhaité ñu ñu boole ñaari dossiers yi. Mhm. day jaxasoo nañu bàyyi bële passeport yi suivre son cours bii ñu utal ko un traitement spécial. parce que y une violation manifeste de l'article 319 du code pénal bi xaraamal toute forme d'union contre nature or certificat de mariage qui est un document officiel du Sénégal turu ñaari góor ñu boole leen mm-hmm. nit ki mënoo wax waxi dof ba ne yëguma ko woon kon fi document bi jaar circuit bi mu jaar foofu tamit war nañu interpeller ñooñu ne bi nga gisee diw turu góor diw turu jigéen sont unis par les liens sacrés du mariage lu tax Euh, ticket wuloo loolu yëpp sax bu ci amee parce que passeport diplomatique pour ñu confectionné ko euh, fi mu war a jaar ba fi mu yëgg ci kaw ci wàllum responsabilité affaire étrangère dem na ba sori donc tey jii nii bu loolu amoon je pense que dana nekk scandale du siècle au au Sénégal bu fekkee ne def nañ ko ci ni mu ni mu ni mu war a waree. ah gisuloo euh, ki nga xam ne ñun mooy suñu doom bàjjen le leader de l' extrême droite Marine Le Pen yëkkati ni ci kàddu. Hmm. xas na Sénégal. elle a parlé de de voyous à col blanc kon ñii dañu ameel àq nit moo tax nag procureur daf ci war a dem ba mu jeex pas pour acharner wu contre qui que ce soit mm-hmm. waaye pour setal deru institution parlementaire pour setal deru Sénégal parce que fi mu ne y des hommes d'affaires de très bonne foi des opérateurs économiques des conférenciers internationaux mm-hmm. qui sont très gênés fa ñu ne parce que crédibilité bi passeport diplomatique Sénégal amoon dafa rës ndax yàlla ndogal na sur les 194 états membres des Nations Unies Sénégal amoon na chance nekk dans le peloton des 92 pays. Mm-hmm. yi nga xam ne seen titre de voyage dafa crédible et respectable. foofu nag la la xawee ko daal di daanu. ah nee bi amel nañu àq jox nga exemple yu bëri bëri mais que loolu ça suffit tey nii pour que ñu ñu ñu tilimal institution bi yëpp assemblée nationale bi parce que ay cas la yoo xam ne ay nit ñoo ko def ci seen tur lañ defee mais pas ci turu dana ci tiimal ou lépp a ngi dépendre de la suite de la suite qui doit être donnée à ce dossier. Mm. te ñun nous exigeons am nañ ci droit. yow tu es un contribuable. Mm-hmm. Euh, sa retenu sur les salaires yi ngay yi ñu lay dagg sama TVA e yi ñu may dagg ak keneen ak keneen moo bokk ci li jox député bi un salaire confortable mm-hmm. véhicule de fonction carburant ñoom amuñu droit on les amis à l'abri du besoin fal leen mais Assemblée nationale depuis début troisième législature bi rek nekk. la législature la plus scandaleuse trafic de faux billets trafic de passeport mm -hmm. trafic de visa trafic de certificat de mariage alors euh, il est du devoir et du droit absolu de tout citoyen d'exiger que la lumière soit faite. rawatina la moo ci war nekk responsabilité rawatina lan d'abord eggalil foofu. voilà rawatina ñun jàpp nañu ne que ce n'est pas seulement le procureur de la République qui doit être interpellé. Mhm.

bu boobaa nag bu ko procureur defee dinañu dégg yuuxu fuñ ko foogee woon. jàpp nga ne responsabilité yi kon euh, liñ ci tudd lu néew la ci li nga xam ne am na ci comme comme responsabilité. lii c'est c'est la partie visible de l'iceberg. trafic dafa yàgg a am ci treizième législature bi. ko jub sax président Pape Diop xaw xam. mu ngoog mhm. te moom il sait de quoi il parle parce que jiite na institution parlementaire bi. léegi j'ai lu quelque part dans la presse occidentale ñuy dem ba di ñu comparer. avec la mafia sicilienne. Mhm. parce que les maf les mafiosi siciliens et la Camorra napolitaine dañu transformé woon leur institution parlementaire en lieu de débauche et de trafic Sénégal yi bëgg a egg ci niveau boobu loolu kenn waru ko seetaan du affaire u Jamra du affaire u dara mais tous les citoyens dañu war a jóg exiger que ñu redorer le blason. Mhm. de leur institution parlementaire ni ko précurseur yu digne yu noble yu mel ni Lamine ngay bàyyi woon lay Amadou Cissé Dia et autres. le la. waa président il faut mu respecter le principe de la séparation des pouvoirs mhm. parce que bu yëkkatee kàddu dañu ah mu ngay protéger diw moo tax nañu bàyyi procureur mu soññ institution parlementaire ñi ñuy war a teggi seen melaani kiraay ñu teggi ko mhm. moom mu mën a def liggéeyam alors bu ñu fàtte ne nag et c' très important mhm. pour interpeller le président de la République heureusement que nga tudd ko l' attribution de passeport diplomatique est régie par décret c' est le décret 78 21 du 6 janvier 1978 moi j'en sais quelque chose parce que j'ai été bénéficiaire de passeport diplomatique bi ma nekkee président de conseil d'administration pendant cinq ans mm c'est régi par décret du tëñëx tëñëxi nii rek ku la neex def jox xanaa nga bëgg a jalgati yoon mhm. te euh, décret boobu dafa wax ne ayant droit yi dañu am un point commun mooy nañu doon ñoo xam ne ils sont en exercice au niveau des fonctions gouvernementales parlementaires diplomatiques et militaires ñooñu ñoo ci am droit ginnaaw bu décret 78 21 leerale loolu nee na terewul nag am na ñoo xam ne c'est des anciens responsables notamment euh, ñoo xam ne servir nañ état bi au niveau des plus hautes fonctions l'ancien ancien président de la République ancien premier ministre ancien euh, ministre des affaires étrangères ñoom ñooy ñi nga xam ne nekkatuñu ay en fonction te am ci droit waaye euh, texte bi dafa ne si toutefois ils en expriment la demande. parce que ci mel ne Abdoul Mbaye hmm. recevoir naa ko fii nee na am passeport diplomatique jël nañ bosam bu yàgg moom c'est ce qu'il savoir. lu tax ñu jël ko. ah expliqué ko nee daal euh, jël nañ actuellement am passeport diplomatique. am amu ci droit. Hmm. parce que président c'est un ancien premier ministre jàpp nga ne kon am na du du du 6 janvier 1978 dafa ne ñi ci am droit mooy ñi nga xam ne leur point commun c'est d'être de hauts responsables de l'État en fonction des fonctions gouvernementales législatives diplomatique et militaire. kon nag moom wala bu fonction bi jeexee da nga koy rendre. ok parce que durée de vie bi dafa gàtt. un an la. Mhm. man en tant que ex président conseil d' administration. amuma ci woon droit. Mhm. mais l'article le décret 78 euh, euh, euh, que je viens d'évoquer bu fekkee sollicité nga ko président mën na user de son pouvoir discrétionnaire jox la ko wala mu xañ la ko. est problème bi jógewul ci ni ñu ko élargir ci famille ñi nga xam ne ñooy ayant droit yi. waa élargissement bi moo indi jaxasoo bi mooy jur tamit dérive yi. Mm-hmm. ba tout le monde se souvient parce que njuuj njaaj ci wàllu passeport diplomatique ça ne date pas de ce régime là tout le monde se souvient au bord de la Seine le célèbre fleuve français benn femme chinoise de 32 ans bu ñu fekk sur les bords de la Seine mu faatu ñu yóbbu def autopsie bi fekk juróom-ñeenti jam-jamu paaka mhm. nee nañ mafia bi ñoo ko rey pour quelle raison c'est une autre histoire waaye ba ñu fuyee yëre yi ñu fekk ci moom passeport diplomatique sénégalais euh, en en en cours de validité alors ak yeneen yu xew ci diggante bi moo tax président Macky Sall ñu ngi koy invité. la mu fi defoon en 2019 na ko defaat. parce que nee woon na dafay donner un coup de pied sur la fourmilière pour couper court à aux spéculations et des manœuvres frauduleuses yi na yi nga xam ne mu ngi woon ci suuf. c'était le 17 euh, euh, avril 2019 il avait instruit le ministre des Affaires étrangères nañu annuler tous les passeports en circulation. te mu proposé ko beneen format bu bees ñu recommencé. ah yëf yi ni mu yéexee ñu bëri ñu ngi koy dénoncé xëy na enquête la xëy na dañoo bëgg a xam fan la responsabilité yi toll mais les Sénégalais se posent des questions et souvent ce mooy que ne quand ça concerne ñoo xam ne faruñu ci nguur gi dafay gaaw mais il suffit que ñu si ñoo xam ne du pouvoir que yëf yi yëf yi yéex moo tax sax maanaam est-ce que président Sall warul euh, un peu euh, euh, def li nga xam ne mooy pouvoir am ak demander que ne enquête bi am sérieusement pour au ñu xam ne moom ak xëy na ñi gën a jege laaluwu ci mbir mi. waaye xam nga moom constitutionnel actuellement amul sañ-sañ soññ président assemblée nationale ne ko euh, level immunité parlementaire u diw ak diw président euh, président assemblée nationale en l'espèce kenn la amal affaire mm-hmm. mooy le parquet le parquet est seul habilité introduire une requête ne ko diw kat ñu ngi koy tuumaal sangam waaye ñun mënuñoo am accès si moom tant que teggu leen maladie kii dafa tam mënu ci prononcé wu wax ci dara wax ak sénégalais yi wala wala dara loolu tamit il n'a pas il loolu xëy na mën na ne bu ñu demee ba mbir yi jël tournure boo xam ne gënalul kenn parce que laa xëy na ñu ngi koy néewal doole mais yëf yëf yu garaaw la non seulement trafic bi dafa garaaw mais li ci dooleeku mooy li nga wax sànq ñu dem ba euh, sëy boo xam ne ñaari góor la te ñu xam ne Sénégal dañ ko fettere mu mu am ci ci lu lu doy waar la waaw waaw parce que doy waar gi mooy la fait te moo loolu moo moo gën a metti Sénégalais yu bari mm-hmm. scandale bi dafa dépasser les frontières du pays mm-hmm. dem nañ wax naa la ko sànq dans la presse occidentale ñi ñuy comparer à la mafia sicilienne. Mm-hmm. parce que c'est c'est c'est monnaie courante dans dans alors moo tax nag urgence su tirer ko au clair euh, dafa nekk loo xam ne euh, waajib la pour assemblée nationale waaye tamit pour euh, les institutions de la république mais surtout pour redorer le blason de l'institution parlementaire ba noppi itam pour mettre les hommes d'affaires les conférenciers qui parcourent le monde mmh. avec des ah passeports ah, diplomatiques et qui mmh. sont sénégalais pour ñoom itamit ñu jot seen stabilité ak te ñu mën a siggi waaye fi mu ne bépp sénégalais bu nekk dans le monde même bu fekkee bi scandale bi éclaté fekku la fi. Mhm. Euh, aéroport boo dem da ngay am kers. dinañ la xool xoolaat dañu naan boo demee waa jaa ngi naan cëm ci parce u boo demee ci trafic mhm. Mhm. moo tax nag euh, bi yoon c'est l'occasion ou jamais trafic récurrent yi am ci sixième législature bi état du Sénégal c'est-à-dire le bureau de l'Assemblée nationale euh, les efforts du bureau de l'Assemblée nationale conjugués à ceux du procureur de la République et de l'exécutif c'est l'occasion ou jamais d'y mettre un terme ñaari député yi ko yi ñu tudd ci mbir mi hmm. xëy na bu ñu defoon comme Boughazelli yi démissionné yëf yi dina gën a gaaw hmm. ils l'ont pas fait euh, seen refus de démissionner boobu dama leen refus sax seen décision de ne pas démissionner boobu euh, ndax am nga am nga ci jàngat waa xam nga malaanu kiiraay boo xam ne ala kuliyaalin pour euh, parquet mën a am yoon ci yow foog ñu dindi ko il est plus honorable hmm. nga dindi ko sa bopp que ñu pëmti pëmte la ñoddi la dégg nga muri la parce que am na ñu naan sax il cherche à gagner du temps mais bu ñu defoon loolu. bu hmm. fekkoon en âme conscience xam nañ ne defuñu dara démissionné woon moo doon gën a yomb si ñoom pour enquête bi gaaw yëfi yëfi teel a leer. waaw pour enquête bi gaaw waaye tamit euh, euh, on l'a vu tout à l'heure il faut que ñu euh, identifier toute la chaîne de complicité. c'est très important certificat de mariage ça ne peut pas s'établir dans le cadre de l'Assemblée nationale. Hmm. soit mairie mais dans par un officier d'état civil. affaires parce que ñoo koy délivrer euh, am nañu leen soit euh, ils ont manqué de vigilance wala ils sont euh, effectivement parce que man bi may def demande de passeport diplomatique parce que je devais voyager beaucoup dama nekkoon président conseil d'administration d'une institution qui s'occupe de commerce international. Mm-hmm. c'est le centre international du commerce extérieur ñu gën ko xam ci CICES wala foire. man jëmbuma rek am sañ-sañ de ministre affaires étrangères bu ko defee fa lay jaar kooku tam jébbal ko affaire étrangère affaire étrangère convoqué ma. Mhm. ne ma indil kayit sangam kayit sangam kayit sangam ma jox ko. fekk jot na yeneen demande am na yu muy accepté am na yu muy rejeté les farfelus. après moom amul pouvoir décider ndax war nga jot wala doo jot dafay jël lépp nag acheminé ko vers. la présidence de la République le président de la République a un service compétent qui s'occupe de ça mhm. ñooñu bu jox ko un un un petit rapport après moom mu def ay observation am ñu muy retenir am ñu muy dindi ba pare du ko jox l'intéressé de daf koy delloowaat affaire étranger affaire étrangère jël ko jox ko ko ko demandé woon mm-hmm. kon nag kenn mënul fexe ba gëmloo nit ñi ne procédure boobu dossier bi jaar yëpp kenn seetluwul ne y a un acte de mariage qui unit ci wàllu sëy góor ak góor. Mhm. ça ne peut pas passer inaperçu. il de temps ma bëggoon a xam euh, euh, Jamra ñu ngi leen di dégg ci combat yu bëri bëri front yu bëri bëri yu soxal euh, jikko yi ak défendre l'islam diine ji yéen a ci mais ma bëggoon a xam concrètement qu'est-ce que a changé parce que ñu ma leen jàpp da ngeen éparpiller seen ay forces en fait. qu'est-ce que tey jii nii euh, maanaam combat bii nii xëy na suba beneen fëlaat ñu déggaat leen ci. loolu noonu yëpp est-ce ci ci ci benn organisation. non bëriwul l'essentiel mooy combat yëpp. ñu ngi ñu mhm. amoon nañu un grand combat en 85 avec les francs-maçons on les a gagnés. un procès retentissant. avec le soutien naturellement de sëñ Abdoul Ahad Mbacké de Seydi Abdoul Aziz Sy Dabakh et de Baye Seydi Thiaw. Mhm. xeex nañ fi dégg avec les trafiquants de drogue. On a réussi à criminaliser le délit de trafic de drogue à travers la loi 2007 du 30 novembre xeex nañu fi ba les trafiquants jàngal xale yi affaire mandikat jaaykatu jakartaay cent franc rek nga jënd sa dosette alcoolisée ci école yi naan. Mhm. def nañ pression ci état bi ba Macky Sall def pression sur le ministre du commerce Aliou Sarr mu daal di génne l' arrêté ministériel du septembre interdisant. sur toute l'étendue du territoire Jakarta Salañ Salañ ak namp bi mhm. euh, livre bu bon bi fi doon bëgg a jaar bu xella woor ni di ñàkke teggin Seydina Mohamed Jamra def na la mu ci war a def état bi jàppale ñu Macky Sall yónni premier ministre ci ñun premier ministre wax ma jox ko détails yi jox ko yépp mu boole ma ak euh, Mbagnick Ndiaye le ministre de de la culture ah, kooku daal di ànd ak Alhaji euh, Cheikh Dramé qui était à l'époque le commissaire de la sûreté urbaine et qui est maintenant commissaire euh, commissaire euh, central mm-hmm. ma jox leen librairie yi koy jaay ñu jëm saisir ko lakk ko taal ko mm-hmm. c'est on a des résultats ah, aussi dans le passé l'affaire des séries et il y a télévision il a uh-huh. dégg nga confession érotique bu canal mm-hmm. une série pornographique diffusée exprès pendant les heures de gratuité di yàq xale yi CNRA jox nañu dégg arrêté nañ ko il y a la, euh, la la production qui n'est même pas une série ou un téléfilm mais c'est une télé-réalité te mu tudd Kawteef mhm. daan daw seen TV nga xam ne ay dagg yi saaga ndey rek la mhm. euh, ñun mënuñu fajal suñu bopp waaye am nañ droit saisir ka war a faj kooku faj na ko arrêté ko bi ci mujj mooy avortement médicalisé bi ak coow lu jur euh, foofu la jeexale sax parce que temps bi euh, jeex na ñu gis que ne am na ci ko amante woon nag benn werante bu xaw a benn télévision hmm. hmm. Hmm. a pour inviter ma ci émission bi interpellé woo ma de manière anonyme. da hmm. ma woo. moo tax ma ñëw. waaye boo demoon sa page Facebook ne bon maa ngi lay invité du la sax faale. parce que ñun les interpellations indirectes euh, on n'a pas l'habitude de. de réagir à ça jërëjëf ñu ngi lay a baax. waa euh, kontaan lool ci seen taxawaay te ñaan leen nag ngeen taxaw. Mhm. ci ñaari mbir yi parce que yéen ay lanceur d'alerte ngeen na assemblée nationale leeral deux choses mbuxum bi am ci te certificat de mariage yi nga xam ne am na ci benn boo xam ne les sénégalais sont avides de savoir et de comprendre pourquoi officier d'état civil signé mbir moomu te mu wóor ko ne tur wi ak tur wi tur góor la jërëjëf ci taxaw bu baax a baax Mame Matar Gueye ñu koy sant di ko remercier yéen tamit jaa ngeen jëf di daje xam naa suba ak jàmm ak beneen invité 7 Soir jaa ngeen jëf merci beaucoup votre préférée vous suit partout et vous pouvez